ñu ngi ak yéen ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala toll ci suratul baqara bi ci jël ñetti aaya tey aaya ba 210 muy ñetti aaya yoo xam ne sunu borom subhaanahu wa dinañ ci jàngal juróomi mbir bi ci njëkk mooy wujubu قبول الشرائع الإسلام كافة وحرمة التخير فيها nee na sunu borom subhanahu wa taala ci ñetti aaya yi nekk sunu kanam daf cee waral jullit bi mu mën a nangu sharia islam lépp qubulu sharail al islami sharia li xew tey ci jamono nga dégg nit mu naan man faalewuma sharia walla ñun sharia suñu yoon nekku ci wala ñun dunduñu sharia loolu ku ko wax rek yéeféer nga képp koo xam ne ci ñun dañ leen a sharia nee na nga ni man faalewuma sharia wala dunduma ko wala xawma ko yow yéeféer nga doo jullit ndax sunu borom moo waral ci ñun ñu jël sharia lépp la wax lépp wujub dafa war kafa lépp bu dee cent la da jël cent yëpp mu ne wax xurmatu attaxiiru fiha mooy ngay tànn dafa araam ci jullit muy tànn naan man li moom a neex ci sharia bi lii neexuma ci lii laa d'accord d'accorduma ci lii loolu dafa xaraam ci jullit na ko yëg dalil bi mooy sunu borom subhanahu wa taala moo wax ci suratul baqara afa tuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad ndax da ngeen a bëgg a gëm lenn ci téere bi weddi leneen fa ma jazaau man yafalu zalika minkum mu ne illa xizyun fi lxayaati dunya wa yowma alqiyamati yuradduuna ila asaddi alazab wa ma allahu bi gafilin amma taamaluun képp koo xam ne ci ñun da ngaa xaaj téere bi jël li la intéressé li la ni nga teg ko fële sunu borom nee na ñaar la yàlla di teg ci àdduna di nga dund dund gu doy waa àllaaxira boo dee yàlla daf lay lakk kon mbokk yi aaya yi nekk sunu kanam dinañu jàngal ne lislaam lépp la ñuy jël sharia lépp lañuy ñuy jël kenn du xaaj kenn du tànn comme li am tey ci réew mi am na ñu tànn julli ñi tànn julli ak koor ñenn ñi aji màkka lañ tànn ku nekk rek kuréel gu nekk am nga loo tànn ci diine ji leneen li moom bu ñu la waxee nga ni sama yoon nekku ci te mbir yi boo ci bàyyee lenn rek bu yeboo nga bàyyi li ci des leneen li soo ko defee yàlla du ko jël foog nga d'accord ci lépp lépp nga jël dalil baa ngi ñëw ci kanam ñaareel ma min mustahillin xaraman aw taarika waajiban illa huwa muttabaun li sheytaani fi dalik amul kenn ci jullit yi koo xam ne danga daganal lu araamal lu araamoon nga daganal ko wala nga bàyyi lu war lu dul ñaari mbir yi nga def seytaane moo la ko defloo saa yu jullit fekkee lu dagan mu araamal ko wala mu fekk lu war mu bàyyi na ñépp xam ne yow defoo ko ci sa bànneexi bakkan mais dafa am lu nekk sa ginnaaw loo ko bàyyi loo loolu moo tax ñi ëpp ci gis ngeen ñi ànd ak ginne di lënkaloog moom ci mbiru lislaam yi dangay gis ñu bàyyi dara foo gis kuy faj jinne ci faj bu dul sunna alquran jàngalewul faj boobu dangay gis mu bàyyi benn ponk ci ponk lislaam yi benn du julli wala muy julli di ànd ak janaaba wala du aji màkk walla du woor wala muy julli di tardeel waxtu wi wala du julli ji ajjuma foog mu bàyyi dara ci principe bu ndax jinne ji mën a d'accord ak moom lii muy def moo tax mu ne képp ku daganal lu araamoon wala nga araamal lu daganoon wala nga bàyyi lenn lu war na ñëpp xam ne danga ànd ak seytaan dangay gis tey ay nit ci diine ji loo xam ne dafa war waxuma la war mais alquran la texte nga dégg ñu naan waaw ah, ñun de loolu suñu yoon nekku ci ah, ku ko def sa affaire la mais ñun duñ ko def léeg-léeg sax nga bokk ci mbooloo mi ko def ñu ne la xoolal bu fekkee ñun li ñu nekk amoo ci kóolute fii bu fi ñëwati mos naa dégg benn sëriñ bu doon def conférence julli jot ay nit dëb di julli mu yuuxu leen yuuxu boo xam ne ne leen bu leen ma yab man ci julli laa nekk ñun li ñu nekk ku ci wóoluwul wul ci dugg te xam ngeen julli ni mu réyee ni mu màggee ci lislaam même booy jihaat jihaat moo gën a garaaw ay jaasi ñooy dal baat yi di dagg ñu ne la jullil waxuma laak nag toog di conférence ñetteel mooy wujubu tawqiu l uquba inda zuhuri l maasi al izam bàkkaar boobu ñu naan bàkkaar bu mag te yàlla teg ci ay mbugal saa yu feeñee rek li ci war mooy sharia lim ci wax nañ ko def su nit reyee nit solution amul lu dul dañ ko war a rey su fekkee moo ko tey dangaa njaaloo solution amul lu dul ñu caw la wala ñu rajm la dangaa sàcc charia xool li tax nga sàcc yaa ko tey solution amul lu ñu dagg sa li yàlla wax saa yu leeree ne lii dañ koo war a def acca dañ ko war a def amatul négocier ci di intervenir ci li yàlla wax amatul ixwaan yi ñeenteel mooy isbaat sifatul majii li rab taala li fasli li fasli qadai yowm alqiyama bokk na ci aaya yi jàng tey mooy yàlla dafa saxal yowmal qiyaam buy atte jaam ñi moom yàlla ni muy ñëwee loolu dañ ko war a gëm isbaatu sifa yàlla dafa saxal melokaanam bi muy ñëwee moom yàlla yowmal qiyaam pour atte jaam ñi jàng mu ne wajaa rabbuk wal malak saffan saffa kon yàlla subhanahu wa dafa saxal ci aaya yi ñu war a jël tey ëllëg yowmal qiyaam buy atte jaam yi moom yàlla ni muy ñëwee ak ni leen di attee juróomeel mooy xurmatu at taswif wal mumalatatu fi tawba juróomeel bi ñuy jàng ci aaya mooy dafa xaraam yéexe tuub ak di def defle naan dinaa noo xaaral ma xaar ba ci kanam quoi parce que instant yi xam nga pare gu ma quoi loolu ngay gis tey ku war aji maak yow doo ñëw aji non xaar nañ xaar tuuti parce que instant yi damay ragal ñëwaat nekk ci xam nga loolu jullit du ko def jullit du yéex tuub kenn ci ñun warul wax ne ba ci kanam saa yoo gisee ku war a tuub naan ba ci kanam rek yëgal ne ku texee di ngi nii laxdari moo ñu jàngal loolu fa innahu min alaamati shaqo wal xislaan loolu dafa bokk ci kii dafa texe di te yàlla dafa tëj bunt bi nga xam ne leeraay gi mu waroon jël pour dund bunt boobu la yàlla fàtt isan ixwatal iman mbokk yi juróomi mbir yooyu moom la ñuy jëlee ci ñetti aaya yi ñu war a jël tey aoudu billahi min alshaytani arrajim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 sunu boroom mu ngi woote ñan lay woo ñi ko gëm abdullah ibnu abbas nee na saa yoo déggee yaa ayyuha allazina amanu taxawal daf lay diggal walla mu lay tere yaa ayyuha allazina amanu ci kuy dawal oto mooy feu rouge ci yow booy dawal ba foo bi tàkk ci sa kanam nooy def ci Sénégal am na ñoo xam ne bu foo bi ci la ñuy dem ci ay dëkk wala ci Sénégal bu foo bi tàkkee da ngay taxaw ci yeneen dëkk yi bu foo bi tàkkee dañuy wane ne danger la oto yi ñooy dem bu kenn dem oto yooyu dem bu foo bi verte dañuy taxaw ñu wane ne jàmm ñun bu foo bi tàkkee ci la oto yi di taxaw nit ñi pourtant xel nanguwul loolu foo bi bu xonqee danger la kon kay oto yi ñooy war a daw loolu lu muy tekki ci alquran mooy yaa ayyuhal lazina amanu saa yoo ko déggee rek taxawal yàlla moo lay wax ak yow yàlla moo la woo yàlla ñan la woo ñi ko gëm moo tax mu ne yunaadi alxaq tabaraka wa sunu borom mooy woote ñan lay woo ibadahul muminin jaam yi ko gëm lan leen di doye amiran iyahum bidduxuli fi l islaami yàlla moo leen di woo ne leen sama diine ji di diine lislaam dugg leen ci lépp moo tax mu ne yaa ayuha alladina amanu udxulu fi silmi kaafa dugg leen ci diine ji lépp yàlla bu waxoon dugg leen ci diine ji rek doy na wala mais mu ne kaafa lépp diine ji amul ngarale tànk yi mbokk yi teg fële tànku ndeyjoor dugal tànk càmmoñ da ngay dugg mbaa nga bàyyi imma shakiran wa imma kafuran diine lislaam yàlla du neexalul nit ñi pour naan leen di dimbali leen ma rek ñëw leen ngir man ngeen dugg non yàlla dana duggal da tànn mbaa nga bàyyi dugg mbaa nga génn mais li am tey ci sunu réew mi mooy weexoo ñuuloo doo jullit doo yéeféer duggoo génnoo ngarale kenn mun laa xam foo bokk 31 décembre 24 col gi dëkkuwaay bi waxin wi dundin wi ku leen a jàkk sa xelam du dem ci lislaam loolu loolu du yëfi jullit gis nga yàlla bi muy tàgg saxaaba muhammad saa sallam dafa ne ku leen jàkk xam ne ay jullit lañ simaahum fi wujuhim seen mandarga mooy ku leen seen xam ne ñi ay jullit lañ même bi muy wax jigéenu jullit ñi nañu muuru def leen ne pour bu ngeen génnee ñu xàmme leen yaa ayuha nabi qul li azwajik wa banatik wa nisaai lmuminin yudinina alayhina min jalabibihinna zalika adna an yurafna pour ñu xàmme leen a jullit dañ koy xàmme mais xoolal jamono bi tey munoo xàmme jullit yi ak yee féer yi mënoo ko mënoo ko barki démb yàggul dara fa benn kër bu ma jaaroon góor gi daf ma doon utloo benn livre ci livre lislaam yi yàlla def ma am ko ma dem di ko yóbbul ma ñëw may présenté ay doomam yoo xam ne ci daara lañu ñu bàyyi ko daara alquran mu ne ma may xoolal ñi seen tube yi mu ngi ci seeni óom tube yi pantalon yi mu ngi ci óom yi mu ne ma xoolal ñi pourtant ñoom ñëpp dañoo mokkal alquran bi ma leen dajalee di waxtaan ak ñoom kenn ki ne ma non islaam bon soo jullee rek moom li ci des ci xol bi la quoi xol bi dina ko régler loolu la ma benn boy bi tontu ne lislaam ci xol la nekk après bu fekkee yaa ngi julli daal amatul problème bon jeex na quoi paa bi di wax mu ne paa bi yow gënoo maa ragal yàlla yow waaw <laughs> gis ngeen ma ni voilà moo tax aussi nga am doom di ko yóbbu muy jàngi seetal fi nga koy yóbbu ku am doom muy jàngi diine xoolal fi nga koy yóbbu c'est très important boo ko yóbbee foo xam ne di tax nga yóbbu ko fa mooy këru alquran kese na këru alxuraan bi nag alquran bi rek nekk ci bopp bi mais bu mu ko dund du amul njëriñ yàlla dafay xas mbaam mu ne nit ku am xam-xam te du ko jëfe mu ngi mel ne mbaam mu ñu sëf téere masalul lazina xumilu tawraat summa lam yaxmiluha yàlla mu nekk ka masalil ximaar nit ku am xam-xam te sa xam-xam bi doo ko jëfe yàlla mu ne yaa mbaam yéen a walla wala sa mbaam gën la mbaam la yàlla wax mbaam te xam ngeen mbaam ci lislaam ñaari àtteeng ci mbaam mbaam bu muy dund araam naa lekk su méddee nag ah waxi noppi bi muy dund araam naa lekk su méddee waxi noppi ba pare yàlla misaal nit ak mbaam pourquoi parce que dafa am xam-xam lànk bañ ko jëfe dafa xam li mu xam mu bañ koo def yàlla mu ne moom mbaam a yem sunu borom subhanahu woo ñi gëm yàlla yàlla woowul yéeféer yi lan la wax yaa ayyuha alladina amanu ee eh ñi ma gëm ku woote yàlla ñan la woo ñi ko gëm mu ne udxulu dugg leen fiilu amrin la baat bi kan la bàyyi dugg leen kan lañ bàyyi ah am na kuñ bàyyi bu mbooloo mi taxawee ci bunt bi ñu ne dugg leen est-ce kenn day taxaw naan day xaar sama tur yow tax duggoo nga ne damay xaar sama tur dugg leen bàyyiwul kenn yàlla daneen udd xulu dugg leen ci lan ne fi ci islam bi waaw lu tax tey julli ji dugguñu ci l'islam au contraire sax léegi dañuy bañ a nekk jullit lu tax parce que parce que parce que mais yàlla dafa joxe ndigal pour ñu dugg fi silmi ci diine ji al islaam mu ne kaafatan diine ji lépp dugg leen ci biir kon lislaam amul nga mare amul ngarale da ngay dugg mbaa nga bàyyi waaye da ngay gis tey nit ne na non ñun bon <laughs> ñun li ñu nekk doy na naa ma wajadna naa ñun li ñu fekk suñu ndey ak suñu baay doy nanu est-ce que sa ndey ak sa baay ci islaam nga leen fekk li ñuy dund lislaam la doo xool te loolu waat boobu ñun ci àdduna ci diine rek lañ ko nangu mais nanguwuñ ko ci àdduna àdduna da ngay fekk sa papa nekk ci néegu ñax nga màgg dafa révolution tabax kër gi gis nga gis gis nga bis boo nee cëpp ñëw li ngay njëkk wax mooy papa ñëwaat naa mu ne waaw nga ne ko kër gi dama bëgg ngeen génn ñu ne la xolal kenn du ci teg baat dañ la loolu lañ la doon doyee nga raser lépp indi ndaraan sànni ji ko daal di koy tabaxaat boo ñëwoon fekk muy dawal mbaam wala fas nga ñëw indi 4-4 est-ce que dañu leen a déet na pa sa papa dina ne non mbaam mi laay dawal parce man moom laa fekk sama papa di dawal dina la ko wax diine rek ngay ñëw ne papa mu ne la xoolal ba ma commencé di julli judduwoo na nga yem du d'accord ñun ñi toog fii yëpp kenn ñun papaam du nangu nga raw ko ci julli sa papa du nangu nga raw ko nga gën koo xam islaam boo waxee mu ne la man ba may jaamu yàlla judduwoo yemal gis nga mais ci àdduna ci wàllu alal sa papa nangu na nga ëpp ko xaalis nangu na nga toj kër gi nangu na nga jënd beneen oto ah même boo ñëwoon tey nekk médecin sa papa feebar nga xool ko xool ko ne ko papa mu ne nga ne ko foog ñu xotti sa biir bi am na lu fa nekk ñu dagg ko génne ko ñaw ko defaraat ko loolu mooy tax nga wér lu mu lay wax yow lañ doon xaar loolu rek moo taxoon ma jur la man maa ngi nii kan moo ñëwee tey fekk sa papa di julli nga ne ko du nii du la wax yow laa doon xaar de mu koy boo moytul nit ñi dañuy ñëw di la ñaanal pour nga mën a toogaat ci kër gi moo tax yàlla dana ñu dugg ci diine ji diine ji nañ dugg ci biir tey nag li tardé islaam mooy ay jullit yoo xam ne dañoo ñëw ba ci trottoir bi taxaw di supporter ni ñoom duñ dugg islaam nit ki mënu koo dund te dugg ci lan mooy dugg ci di diine mooy attewoo ko dund ko parce que tey l'islam dañuy attewoo diine ngay gis fi ci rajo yi télé yi ay nit naan noo ñii sharia la ñuy dund ñu xaqiqa la ñuy dund wallahi barkaa di démb li ma dégg fii ci rajo bi ñu ne Muhammad moo jógee Muhammad bi ñu ko suulee ci bàmmeelam ñetti fan la fa def rek ñëw Sénégal man dama tiit mu ko déggee keroog maa ko dégg sama nopp bi waa ji ne Mouhamad ba ñu ko suulee ñetti fan la fa def ci bàmmeel bi génn ñëw ba fii booru parcelle mu toog foofu ci benn xunt moom mi weexoon fële moo ñuul fii maa ko dégg loolu li kéeféer la Mouhamad mosut a ñëw Sénégal ku gëm ne Mouhamad ñëw na Sénégal rek yow yéeféer nga Mohamed mosu ñëw Mohamed mosul weex mosul ñuul di weex dund na ba yàlla génne ko àdduna mosul ñëw Afrique waxuma laag nag Sénégal mosul dugg ci ay xunt mosul dugg ci ay mbunu mosul dugg ci ay kaaf di fa làqatu Mohamed a nga bàmmee Medina tëdd ba mu génnee àdduna dañ ko suul ci biir bàmmeelam ca néegu yaay Aïcha ca Medinatu Munawwar bu fekkoon ne Muhammad day ñëw Sénégal ba ñuy rey Aboubacar ba ñuy rey Ali mu génn ba ñuy rey Omar mu génn ba ñuy rey Ousmane mu génn ba ñuy rendi Hussein mu génn ba ñuy posone Assane mu génn loolu sax weddi yàlla la yab yàlla yàlla mu ne dee doo dundaat ñun ñu ne ñëw na Sénégal Muhammad yaayam mu ngi tudd Amina dégg ngeen yaayam tuddul xadi tuddul jatu tuddul faatu amina la tudd papaam mi ngi tudd abdallah loolu na leer et déggul woon olof du woon olof dégg ngeen muhammad la woon yàlla wàcc ñu moom téere bu tudd mu judd ni nit ñi di juddoo mu dund ni nit ñi di dundee mu faatu nit ñi di faatoo ñu denc ko nit ñuy dencee nit ñi inta mais bëgg a gëm ne Sénégal yonent yàlla Muhammad dafay ñëw li xam nga li gën a dee fii mooy nit ñi loo wax rek ñu gëm ko loolu mooy problème mu Sénégal yonent yàlla Muhammad mosul ñëw Sénégal ku ngeen dégg mu wax loolu yéeféer la et amul beneen yonent bu ñëw ginnaaw Muhammad alxuraan moo ko wax ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin walakin rasulallah wa xaatama nabiyin loolu du alxuraan yàlla nee na muhammad du bàyyi kenn ci yéen yonent yàlla la moom mottali yonenti yonent bi dafa ne laa nabiya baadi amul yonent buy ñëw sama ginnaaw nan lañ mën a gëmee ne yonent yàlla muhammad dee na soo waxee loolu ñu ne ñun waxuñu yonent yàlla muhammad waxuñu beneen yoon dañu ne muhammad moo ñëwaat <laughs> fu mu ñëw bu mu ñëwee ban téere la indiwaat dafa amaat fi yeneen doom amaat fi yeneen soxna nan ragal yàlla jullit alquran lay gëm lu alquran saxalul yonent bi saxalul ko ku ñëw fii saxal ko ci musiba rek nga nekk booy dee dem safara ginnaaw yonent yàlla muhammad amul beneen yonent te muhammad ma nga madina tëdd musta ñëw senegal bal booy ma mu leer ci yéen yàlla nee na yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla udxulu dugg leen fi silmi ci diina ji kaafa mboolem seen dugg leen jamian laa yaxtalifu an duxuli fi l islam ahad bu kenn ci yéen wuute ci dugg gi muy dugg ci lislaam wala yatruku min sharaaihi bu kenn bàyyi sharia lislaam wala min ahkaamihi shay bu ñu bàyyi ci atte yi dara mais mbokk yi naka ngay waxee ne man jullit laa islaam laa gëm ñu ne la yàlla nee na yonente nga ne ah waaye nag loolu yenuwul yàlla mooy sama borom muhammad mooy sama yonent alquran mooy sama téere ñu ne la yàlla nee na nga ne waaye waaw ah, xam naa ne sax yàllaa ko waaye nag xam nga jamono bi moom wax dëgg yàlla islam moom kenn mënu koo attewoo xam naa ne sax nag l'islam mooy dëgg waaw ah, mais nag wax dëgg yàlla yi moom kenn mënu ko dund loolu mooy lan wala islam mooy dëgg waaye sharia bi dafa metti waaw charia bi dafa métti loolu ngay dégg ci dëkk bi gis ngeen ñu ngi jëm ay élection wallahi buñ ne na woon kaay ngeen wote ñu woteel lislaam ñu bëri duñ dem wote ji que dañ naan kon ñu mun a fo bu ngeen wotelee lislaam du ngeen mun a fo attention parce que lislaam day tere ko fo jullit yi nag bu ñu duggul ci lislaam dañuy nax seen bopp rek nekkuñu ay jullit udd xulu la yàlla wax fi silmi kaafatan dugg leen ci diine ji lépp kaffa mu ne wala tattabiu bu leen topp xutwaati shaytaan yoonu shaytaane gis ngeen xutwaat ay yoon ay jéego masalikahu fi daawa bu leen topp yoonu shaytaane yoonu shaytaane mooy yoon yi nga xam ne dañ leen a verni verni xam ngeen verni dañ leen a peinture dañ leen a cuub ci wetu lislaam indi leen ba ci wetu islaam peentir leen ba ñu nuroog diine ñu ne nit ñi kaay leen dugg leen ci lii lii la yàlla wax lii la yonent wax fekk yonent wi indiwul loolu yàlla waxu loolu mooy dévier déviation dévier yoon yi yonent bi sallallahu alayhi bi mu doon bi mu doon bi muy misaal siraatal mustaqim dafa rëdd rëdd bu jub bu gudd mu ne lii mooy siraatal mustaqim mu daal di rëdd ci côté bi ay yoon mu ne yii mooy yoonu seytaane yi mooy ñal yi yoon wu ci nekk seytaane ngi toog di woote ku ci jaar rek jaar ci yoonu seytaan te yàlla nee nañu ci aaya bi wala tattabiu bu leen topp ñaari ndigal la yàlla joxe ci aaya bi ñaari ndigal ndigal bu njëkk bi lan la ah dugg leen ñaareel bi mu ne bu leen topp dugg leen bu leen topp ah leer na ki la ne duggal am na ku taxaw naa la bul dugg mu ne la bul topp kooku kon duggal ah nañ laaj benn waaye yow yow sa sa jigéen ñi nag sa soxna yi ñii say soxna lañ mu ne waaw lu tax duñ muuru mu ne ñun duñ muuru ñun bokkuñ ci ñun ñun moom ku bokk ci ñun doo muuru loolu kéeféer la ku ko wax yéeféer nga parce que l'islam moo ne nan muuru yonent bi ay soxnaam dañ doon muuru ndax am na soxna su ko gën a baax am na soxna su gën a baax soxna yonent bi yàlla na leen muur leen saxaaba yi ndax suñuy soxna moo gën a soxna saxaaba yi yàlla ne nanu muuru yow nga ni soxna yow kilifa diini nga mais sa soxna du muuru yil sax nga ni non loolu sharia la sharia mooy santaane loolu ñun suñu yoon ci sharia loolu kéefér la loolu nag moo bari senegal ay nit ñoo xam ne dañuy woot nit ñi ci ay caaxaan ba pare tudde ko diine yow kay bi nga amee fit woo nit ñi ci leneen wa tuddee ko neneen te bu ko tuddee lislaam bu ci tudd yonent bi bu ci tudd yàlla amal fit ne ñun lii lañ yore ñëw leen ñun duñu ay jullit waaw ah, ñun beneen kii lañ yor beneen diine mais déedéet dañuy yor yor kufru ba pare kéeféer ba pare bëgg ne lislaam la lislaam li mu jàngale dafa leer mu ngi nii julli ku dul julli yéeféer nga woor ku dul woor yéeféer nga aji ku am alal lànk bañ a aji yéeféer nga julli ji jumaa ku lànk ne jumaa bokk ci yéeféer nga fa leer sharia bii gëm alxuraan waxu yàlla la ku gëm am na leneen lu gë alxuraan yéeféer nga dund sharia ku gëm ni mën ngaa jaar ci leneen beneen yoon bu dul yoonu muhammad moo gën loolu ngay dégg yonent bi li mu woote dafa xaw a diis xaw a diis waaw dëgg la sax xam naa mais dafa xaw a diis ñun nag li ñu indi moo gën a gaaw muy dugal nit aljanna nit ñu gëm loolu ku gëm loolu rek yéeféer nga ma ne yàlla dane wala tattabiu bu leen topp lan mu ne xutwaati shaytaan yoonu shaytaane bu doon sax benn xutwaat jamu la ay yoon ay soobuwaay ay jaaruwaay ay buntu ay mbooloo bu kut buleen ci topp ndax yooyu shaytaane moo fa nekk mu ne innahu moom seytaan adduwun mubinun lakum adduwun noon la mubinun bu biir lakum ñeel leen innahu moom seytaane lakum ñeel leen yéen ñi adduwun noon la mubinun bu biir lan mooy loolu ñaari noon ñoo am benn noon bi xam nga ko xam nga kii sa noon la beneen noon bi xamoo ko dafa xam ne sa noon la dalaa bañ mais mu nëbb ko ñoom ñaar ñii boo doon moytu koy moytandiku ah ah ki nga xam ki nga xam ngay moytandiku de parce que kii xamoo ko waa léegi nag ki nga xam noon la ba pare mu leer ci yow leer nañ mu biin ne kii noon la war ngaa mucc ci moom la mënoo cee mucc war nga cee mucc yàlla lool lañu wax seytaan dane noonu la ba pare mu ne mu biin bu biir mu leer ci yéen xam ngeen noonu la ba pare ñun ñu def ko xarit gars yi dañu laaj Ibrahim bun Adham kilifa gu mag la woon ci Iraq ñu ne ko waaw yàlla dana ñaan leen ma may leen ñu koy ñaan guddeeg bëccëg te mayuñ mu ne waaw seen xol yee dee ci fukki mbir moo tax yàlla du leen may fukki mbir seen xol yee ci de moo tax ngeen di ñaan yàlla yàlla du leen may bokk na ci du mu koy lim mu ne xam ngeen seytaane seen noon la ñu ne waaw mu ne ngeen xaritoog moom loolu ngeen di dégg léegi nii seytaane la wala du seytaan ah mais xoolal fu mu gaare ñëpp ñëw tafsir baa ngi nii mu nekk oto boobu bi war musique boobu fu mu gaare ñëpp ñëw fu ñu woote ñëpp ñëw léeg sax ñu def ko ci ab stade nit ñi dañuy paas te julli kenn du paas kenn du julli ji walla xam nañ ne mbirum seytaane la dangay gis sax barki démb benn waaye dafa woo benn xale bu jigéen téléphone daan ma koy jox ne ma oustaz waxal ak kii dama ko tere musique mu bañ ma jël asalaamaaleykum mu ne waaleykum salaam ko soxna si mu ne waaw mane ko luy sa problème mu ne ah kii nee na musique daa araam fan la araamee ah chaque jour mu may bëgg a fatt musique ma ne ko waaw déglul mu déglu ma ne ko boo deewee mu ne ah ma ne ko sa jouru dëj lan nga bëgg ñu teg fa alxuraan wala musique mu ne ah xam nga ne mos alxuraan ma ne ko ah lu tax mu ne xam nga ne musique kat kenn ko teg ci dëj ma ne ko lu tax mu ne baaxul ah ma ne ko ah loo wax nga ni ma ne ko loo mu ne <laughs> xoolal <laughs> mu bañ cee delluwaat ma ne ko delluwaat ci rek delluwaat ci mu ne waa baaxul ma ne ko waaw kii kay kon sa mbokk la xam nga ne baaxul ma ne ko ndax bëgg nga nga déglu ko rek guddi nga dee mu mujjee ci say nopp mu ne ma waay déet waay ma ne ko kon bàyyi ko maa ngi moom maa moom ba mu ne waa insha allah insha c'est que xam nga loolu mooy dëgg bi mooy nit ñi xam nañ ne baaxul mais fi mu nekk nii koo ko wax xoolal sénégalais bu ñu demee ba bu ñu leen di woo kenn du leen mun a woo kenn du leen mun a dajal lu dul foog ñu teg musique ngeen defan li ñuy teg nii lan moo tax du dara de duñ bëgg ñu ñëw rek parce xam nañ ne buñ ko indee ñu ñëw wallahi buñ tegoon ci rajo bi alquran muy dem kenn du ñëw ñu naan moom ñu la kii def nii nga naan damay campagne ñu ne moom dimbali ñu waaye yow booy campagne alquran ngay teg waaye yow nga mel ne kuy daayira lii nga mel ne ku nekk ci dëj loolu yëpp dañ lay xas ba gànnaaw billahi wallahi taala yi dañ lay xas ba nga mook te ñooñu noonu ñoo gën a tey ne xam nañ ne lii mooy dëgg xam nañ ko waaye doomu aadama yi la seytaane gañe ba seytaane pexe yi mu tëral yëpp pour jàpp leen ñoo gën a tey ne lii yëfu seytaane la waaye dañ naan la waaye waaye xoolal jigéen ju def bopp neen nga ni ko mu ne la ah wallahi xam naa ne du dëgg waaye rek nga ñëw fekk ko muy déglu musique danaan la waaye kii naan sàngara boo ko woon danaan la waaye koo ci wax kuy def lu bon nga ni ko li danaan la waaye xam naa ne li du dëgg maa ko gën a xam mais nag mais nag waaw léegi bu ñu defee noonu fu ñu jëm yàlla xamal na ne seytaane innahu moom seytaan adduwun mubinun lakum noon bu biral si ak nooneelam la ci yéen ndax bu nu fàtte seytaane taxaw na ci biir aljanna naan yàlla waa jii tax nga dàq ma danaa fexe ba ëllëg moom ak njabootam doo am seen ngërëm du ñu am sa ngërëm dinaa leen ñëwee ndeyjoor dinaa leen ñëwee càmmoñ dinaa ñëwee ci kanam dinaa ñëw ginnaaw li ëpp ci ñoom doo fekk ñu lay sant yàlla ñii dinaa fexe ba duñ la topp kii ak njabootam dinaa fexe ba duñ la topp yàlla giñ ne ko giñ naa ci sama màggaay ku la topp yaa ngi ñoom dinaa leen feesal safara xeex la de xare seytaane dafa waat ci màggaayu borom bi ne ko nit ñi ñu ëpp dinaa leen réeral nee na dinaa def tëgg samay soirée dinaa maye doom dinaa maye xaalis <laughs> lépp lu doomu aadama yi bëgg man seytaane dinaa fexe ba ñu nekk ci pour ëllëg duñ dugg aljanna ah wallahi safara rek lañ jëm ajjana moom danaa fexe ba duñ dugg safara rek kon nit ñi bu ñu xamee loolu lan la ñu war def benn sëriñ dafa dégg benn taalibe di jàng alxuraan ne aoudu billahi min ashaytani rajim mu ne ko bàyyi léefam looy def noonu mu ne damay muslu ci seytaane mu ne bàyyi léefam boo bàyyi léefam rek boo bàyyi léefam rek nga mucc ah waaye boo meesoo ba pare naan aoudu billahi min ashaytani rajim wala nga nu check down ba pare naan auzu billahi min shaytan rajim taxaw ci kanam jàkk ji ba pare ne allahu akbar yaa ngi check down seytaan day taxaw di la ree xam te xam ne julli woo ku ku check down moom mënoo julli wala ku xàppati mënoo julli wala loolu tey da gis fii ñu bëri bu ñu sujjootee nga gis silib bi di génn imagineel ngay julli nekk góor nga sujjoot sa silib di génn ah lay tekki de dañu dem dañu dem sorti ma yóbbu xale yi aan aan ñu fekk fa ay baabun baabun fekk fépp am kawar ba mu des ginnaaw gi ma ni xale yi xool ngeen ñu xool ma ni xool ngeen ñu xool man lii mooy check down loolu la ñu xool ñoom ñu ñuy ree man leen lii mooy check down kii check down dañ ko war a indi ba ci golo ne ko xoolal mu xam ne rafetul amoo foo génne fu dul yow génne woo fenn fan nga génne wala loolu nu mu ñaawe nan leen yàlla jubal suñ borom mu ne fa in zalaltum su ngeen tarxiisee min baadi ginnaaw maa jaatkumul bayinaat faalamu anna allah azizun hakim yàlla xam na ne nit doomu aadama la in waqatum fi zalali wa huwa alfusuq wal maasi bu ngeen duggee ci mbirum kàccoor ngeen wax ko wala ngeen jëf ko wala ngeen tàbbi ci mooy yàlla fa in zalaltum su ngeen tarxiisee doomu aadama yenn saa yi muy góorgóorlu ba ci àgg mu tarxiis seytaane moo koy tarxiis loo comme ni mu tarxiis loo woon sunu maam aadama alayhi salaam ba ko yàlla ne bu lekk garab gi mu dem laal garab gi yàlla mu ne faazalahuma shaytaan seytaane moo leen tarxiis loo baat boobu mooy baat bii boroom xam-xam yi dañ ne iza zalla al aalimu zalla al awaalimu boroom xam-xam bu tarxiisee monde bi lay tarxiisal lan mooy loolu lan mooy tarxiis mooy saa yoo juumee tarxiis mooy nga dëkk nga dëgg furi tax nga glissé soo dëggee furi tax nga glissé nooy def da ngay daanu ci lislaam mooy tarxiis mooy saa yoo defee bàkkaar boo xam ne waroo ko woon def nga xool wala nga wax mbaa nga laal mbaa nga lekk mbaa nga naan mbaa nga dox nga jëf loo war jëf saa yu ngeen ko defee min baadi ginnaaw maa jaatkum ba kumbam leen dikkale albayinaat ginnaaw ba nga amee lu leer lu leer loolu nga nekk ci ba caagi seytaane ñëw tarxiis loola ci nga daanu def loo warta def nga juum na ngeen yëg ne faalamu na ngeen yëg anna yàlla azizun ku not ci nguuram la xakimun ku xereñ la su ngeen ko jéggaloo mu jéggal leen su ngeen ko baaloo mu baal leen su ngeen ko woowee mu wuyu leen su ngeen ko ñaanee mu may leen aziz mooy ku not ci nguuram lu ko neex rek moo ci am yàlla nguuram gi lu ko neex rek moo ci am jant bi fan lay xëy di génn penk na ko nit ñi indi sow ñu ne neexuñu chaque jour muy génne fi nañ ko indi fi nit ñi mën nañ loolu taw bi suy wàcc fu muy jógee na ko nit ñi génn ci biir suuf na nit ñi téye ngelaw li ñu ne bu ngelaw am bu xiinee na nit ñi dindi xiin wi bu tàngee na ko nit ñi seddal waaye yàlla li mu bëgg aziz mooy ku not ci nguuram li ko neex moo ci am hakim mooy ku xereñ koo xam ne lu mu def rek noonu loolu mooy xakim suñ la doon jox misaal dañ lay wax xoolal nit ku nekk taxawal sangul ba set nga taxaw ci sa kanamu seetu nga xool sa yaram lu la ci neexul fi ko yàlla def par exemple bët yi nga ni man sama bët yi fii mu nekk neexuma yàlla daf ko waroon dindi fii mu defal ma ko ci sama doq bi walla mu def ko ci sama dënn bi wala mu defal ma ko ci sama ŋaam yi yaakaar naa kenn ku nekk ñun boo xoolee bët tey jii fi ngeen toog kuñ ne woon bët su waxal fuñ la koy defal buñ ko dindee looy wax ndax kenn ci loxoom bu nekk xoolal sa bopp sa bët nga ni man sama bët yi buñ ko doon dindi fan laa bëgg ñu defal moom dañ ma koy defal benn ñaari ñu boole ko mu nekk benn bu ngand ñu def ko ci sama jëbi est na ne bàyyil boobu ñëwal nopp nopp nga xool seetu bi nga ne waaw mais nopp parce que buñ ko placé woon ci sama place gémmiñ gi nii du gën a rafet looy trouvé ne nopp fii mu nekk fii la bakkan gémmiñ gi nag loxo yi nag fi mu nekk tànk yi nag bu ñu jëloon tànki place samp ko ci sa bopp bi nu muy demee loolu mooy aziz loolu mooy hakim lu mu def noonu la doo ko mën a critiquer fii ñu nekk nii kenn mun na fi ñëw benn ingénieur mënoon na fi ñëw nee noo jumaa ji ni ñu ko tabaxee du noonu parce que lii parce que lii parce que lii nga woo benn menuisier bu qualifié mu xool bunt yi ne bunt yi am na sikk lii lii lii nga woo keneen mu xool fenêtre ne lii lii kan benn ingénieur ngeen di xool ba mu xool asamaan ne du nii yàlla yàlla wax ci alxuraan ci suratul mulk bi muy xoolloo nit ñi kéemtaanu yàlla yi kenn mënu ci dara lan la wax mu ne maa tara fi xalqi rahman min tafawut lan nga gis ci li yàlla bind min xalqi rahman min tafawut lu wuute lu bokkul ay erreur mu ne xoolal asamaan farji il basar xoolal karratayni deux fois yanqalibu ilayka al basar xaasi'an wa huwa xasir boo xoolee ba sonn pour nga gis erreur yàlla def da ngay xool ba sa bët yi ne kuruj toqi waaye doo gis njuumte bu yàlla def xoolal géej gi xoolal suuf si yàlla loolu mu ñuy xooloo naan xool leen xool leen xool leen ci loolu la dem ba ci suñu bopp mu ne wa fii an anfusikum afala tubsirun même sa bopp rek xoolal sa bopp xam nga nit ñi lu tax duñu waaru même bu fekkoon ne seen bopp sa lañuy xool dañuy gis yàlla seen bopp nopp am na ndox wala amul ndox am na ndox bët am na ndox bakkan gémmiñ ñaata place laa la limal ah ñeent ndox yëpp dañoo wuute te bu ci nekk am na ndox te ndox mi du benn te ci benn place lañ nekk yëpp ci bopp lañ nekk te xool niñ jegante boo jooyee ba façon ndox mooy génn te munu faa manqué de bu fa manqué rek nga uti ko moo tax yenn saa yu bët di métti nga dem uti paccal bi ci bakkan bu manqué nga jënd mentalato di ñuux gis nga bu ci manqué nga uti ko wala yàlla defal la ko fa te benn nuróow nuróowul façon nuróowuñ te mënu faa manqué fal force mu nekk su manqué rek nga jóg uti ko boobu rek ñeenti yooyu rek buñ ci yemoon day da ngay xam ne yàlla mooy yàlla loolu mooy xakim ku xereñ koo xam ne lu mu def noonu la wa fi anfusikum seen bopp rek afalaa tubsiruun xoola bët ni mu toll lan moo lay gis loo xam nga ko nit ñi toog fii ko xam lan moo tax ñuy gis li tax ngeen di dégg li tax ñuy dégg nii li may wax dafa neex wala neexul dafa neex xam nga lu tax mu neex parce que da koy dégg boo ko dégg loolu du neex lan moo tax ñuy dégg waroon nañoo laaj loolu suñu borom lu tax ñuy gis lu tax ñuy noyyi lu tax ñuy wax lu tax ngay dox lu tax sa loxo yi di yëngu lan ana lan mooy yëngal articulation yi muy dem yàlla mu ne wa fi anfusikum seen bopp afala tubsirun ku xool sa bopp jàng rek gis yàlla xam ne yàlla mooy yàlla te boobu mooy bi gën a ndaw soo ko doon xool ci asamaan soo ko doon xool ci géej boo ko doon xool ci suuf boo ko doon xool ci garab yi boo ko doon xool ci jaww ji boo ko doon xool ci mbindeef yi ci àddina bi kon da ngay xam ne yàlla mooy yàlla mais mal asaf doomu aadama yi duñ gis suñ borom suñ borom subhanahu wa taala mu ne hal yanzuruna ndax gaa ñi dañuy xaar nga ni maa yanzuruun istifham lin nafi hal yanzurun duñu xaar illaa lu dul an yaatiyahum mu dikke leen allahu yàlla ëllëg yowma alqiyamati nit ñi daal li tax mënuñoo jub mënuñoo jaar ci yoon yàlla mënuñoo nangu li yàlla indi mënuñoo dugg ci sharia bi lu tax dañuy xaar ëllëg yowma alqiyam yàlla ñëw te keroog bu yàlla di ñëw dootul baax ndax boo jullee kenn dootu ko jël boo wooree kenn dootu ko jël boo saraxee kenn dootu ko jël lépp loo defati ci lu baax kenn dootu ko nangu moo tax xaar yàlla mu ñëw baaxul hal na xaaruñu ñoom nit ñi li leen tere baax illaa lu dul an yaatiyahumullahu yàlla dikke leen ëllëg fii zulalin ci keppaar min alxamaami keppaar goo xam ne benn niir moo ko ëmb ëllëg sunu borom subhanahu wa taala day dikke jaam ñi di leen atte muy yowmal qiyaam mooy jour bi muy dajale nit ñi ci benn pàkk bu tudd ardul mahsara doomu aadama yépp la la yàlla dajale ci suratul mursalaat yàlla mu ne haza yowmul fasl jamaanaakum wal awwalin tey mooy bis bu ñuy tàqale dëgg ak fen dajale naa leen la tàmbalee ci aadama ba ki mujjee ñëw jinne yi ñëw wër doomu aadama yi jinne yi ñooy ñëw wër benn daal di wëraat ñaar parce que jinne yi ñoo ëpp nit ñi malaaka yi ñëw wër wëraat wëraat parce que malaaka yi ëpp nit ñi ëpp jinne yi tegtal bi rek mooy ku nekk ci ñun am nga ñaari malaaka yu lay garde ku nekk loolu rek war nañu ñu ëpp deuxième yonent bi nee am na néeg bu tudd baytul maamuur bés bu nekk ñaata malaaka ñoo fay dund soixante-dix mille malaaka ñoo fay dugg te malaaka bu fa dugg doo duggaat te bés bu nekk soixante-dix mille malaaka dugg fa yonent bi nee asamaan première bi mu ngi kiij kiij yi man mooy kiij kiij mi ngi waaj daanu ndax ay malaaka yooyu sàbbaal yàlla moo tax malaaka yi dañuy wër trois fois boobu nag la yàlla naan yaa ma'ashara al jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaari samawati wal ardi fanfuzu ee eh, yéen nit ak jinne tey nag ku ci mën a daw yéegi kaw asmaan walla nga daw laqatu ci biir suuf bismillah dawal kenn buuse jinne yee ñu wër malaaka yi wër leen wëraat wëraat allahu akbar sunu borom subhanahu wa taala dikk ànd ak atteem mu ne wal malaikatu jàngeen ci suratul fajri yàlla mu ne wa jaa rabbuka wal malaku ah soffan soffa yàlla dikk ànd ak malaaka yi ñu ron jàngeen ci suratul xaqa mu ne ci suratul xaqa ah fa iza nufixa fi suur nafaxatun wahida wa humilatil ardu wal jibal fa dukkataa dakkatan fa yawma izin waqaatil waaqia wan saqati samaau fa hiya yawma izin waahiya wal malaku ala arjaiha wa yaxmilu arsha rabbika gis nga yàlla day dikk malaaka yi yenu arsh bi fawqahum yawma idin samaniya kon yàlla subhanahu wa taala day dikk ëllëg yowmal xiyaam bu ñuy àtte mu ne wal malaaikatu ak malaaka yi wa qudiyal amru ñu àtte mbir mi ñu àtte mbir mi mooy ñi war a dugg aljanna dugg aljanna ñi war a dem safara dem safara wa qudiya ñu àtte al amru mbir mi wa ilay ci yàlla turjaul umur mbir yëpp ci yàlla lay dellu amul lu dul dellu ko ci yàlla lépp ci moom la bàyyee ko ci moom lay delluwaat moom allahu subhanahu wa taala ixwaan yi li moo doon darsa tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa wa barakatu